C'est d'abord pour rendre grâce à Allah subhanahu wa qui nous a conduits à ce jour qui était très attendu ce 24 par l'ensemble des Sénégalais. Et ce jour où les plus de millions de Sénégalais d'ici et la diaspora sont appelés à désigner le cinquième président de la République. Je suis venu faire mon devoir de citoyen dans ma ville natale, à Dagana, dans cette école où j'ai été initié pour euh, les, cours d'initiation avant de quitter d'aller peut-être Mais c'est dans une de ces salles, peut-être même là où j'ai voté, je pense que j'ai été initié. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais également c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je me retrouve ici comme ministre de l'Intérieur, sacrifié à, une, à de citoyen, comme tout le monde. C'est ça la, également la rigueur du code électoral sénégalais. Le ministre de l'Intérieur que je suis ne pouvait pas voter à Dakar même s'il le voulait. Donc j'étais obligé de parcourir les 400, plus de 400 km qui nous séparent de Dakar pour venir voter à, à, Dagana et devoir retourner tout suite à Dakar et pouvoir superviser l'ensemble du processus. C'est également un élément important à, à, souligner. Donc je vais juste lancer un appel encore à la paix, au calme, à la sérénité. Un jour de vote doit être un jour de respiration démocratique, mais ne doit pas être un jour de tension et de violence. Parce que tout ce qui sera détruit devra être reconstruit, donc mieux vaut ne pas détruire. Et ce qu'il a de plus dur à reconstruire, c'est les relations humaines, le tissu social. C'est plus difficile à recoudre. Les infrastructures, on peut les reprendre, beaucoup de choses peuvent être reprises, mais le tissu social, quand il est déchiré, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faudrait qu'on plus vigilant, que nous, que nous, Nous le comprenons d'ailleurs tous. Tous qui veulent diriger le Sénégal de le rappeler, parce que dans la passion, que le Sénégal nous transcende, que le Sénégal au-dessus de nos intérêts particuliers. C'est le message que je voudrais lancer pour que tout déroule dans la paix, dans la sérénité et que Dieu nous permette, qu'il mette dans la poitrine de tous les Sénégalais le meilleur choix possible pour que celui-ci puisse être le meilleur président de la République pour le Sénégal. di leen sant parce que teel ngeen xëy ñëw taxaw fii pour jël jël suma vote wan ko Sénégalais yi ma ñëw ma voté si ci Dagana ci école bi nga xam ni fi laa dalee fi laa dalee école fii donc muy euh, émotion bu bu bëri également di di bànneex ñëw ci sama biir mbokk ñëw fi tey comme ministre de l'intérieur rek xëy na bëgg naa voté Dagana daan fi voté toujours mais tey su ma amoon lu ma gën a dëgg yàlla damay toog dakaar pour mën superviser élection bi foofu ndax foofu la état major national bi nekk mais code électoral bi mayu ma ma voté Dakar donc fii rek laa mën a voté gouverneur yëpp mënuñu voté ay mission ñu nekk ñaar mission ñëpp mënuñu voté mais le ministre de l' intérieur boolewuñ ko ci gëstu naa ko ci côté bu nekk pour mën a def loolu ndax euh, tey toogoon Dakar xëy na ma doon gën a baax ci sama liggéey sañu ma bañ a voté donc loolu day appel aussi donc may lancé Sénégal yëpp xam ne vote bi lu am solo la ndax man Dakar laa jóg laa jógee ñëw ba Dagana voté si delluwaat léegi donc ça veut dire lu am solo la muy tànn suñu njiitu réew mënu ma wax ni bésu bànneex la war a doon naan nga warul doon bésu xeex waaw nit ñi xëy na daanu nekk ci pression xëccoo moom mel noonu politique moom mel noonu faut pas être naïf yaakaar ni benn concours de beauté la ou de vertu déedéet il faut muy jaxasoo léeg-léeg du mën a ñàkk mais mën na mën na bañ a àgg fenn fi ndax lu yàqu nu su dee tabax neex na defaraat mais na lu yàqu ci diggante yi ak société bi du du gaaw a neex a defaraat donc ñuy sant yàlla bu mu mayeen ak ci bés bi di jàmm di dalal xelu Sénégal yi nii matériel bi fépp fu mu a àgg àgg incident yu manquement yu ndaw du ñàkk comme bureau ba mu voté bi léegi président bi xëy si wu donc il woon benn président intérimaire moo tax mu xaw a yéex tuuti man maa fa njëkk maa fa njëkk a voté dina am feneen dina am feneen mais lépp li nga xam ne su amee rek lu benn manquement suñ ko remonté ñu ci war a taxaw daan ci taxaw dans la journée au niveau local su leen ëppee doole au niveau national au niveau de l'état-major et de la direction générale des élections à Dakar daan ci def saafara bu bu di sant kilifa réew mi yëpp moo xam ne leen wax kilifa àdduna dina wax kilifa diine surtout ak kilifa aada yi ci seen ñaan ci seen taxaw ak seen jàppale di leen ñaan mu continuer ñaan ndax Sénégal soxla na ñaan Sénégal soxla na jàmm te jàmm duñ koy dox di ko wax ne aussi duñ koy duñ ci dawal ñaan ndax nag ñu ngi nekk ci weeru koor occasion la donc mu xam ni weeru ñaan la weeru jéggale la weeru jàmmoo la mu tombeeg le carême chrétien en plus donc conjonction de facteur boobu du du hasard suñu borom yàlla moo dajale way gëm réew mi yëpp nekk ci weeru jàmm yàlla donc ci biir loolu war nañu mën a fexe mu dal nu téye nu ñaan ba jàmm am élection bi jàll ci jàmm yàlla jël ku gën ci réew mi moom xam na ko mu def ko ci Sénégal yi nu voteel kooku ndax moom président gën ci réew di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax na ñëpp génn voté ci jàmm ak salaam parce que c'est un devoir extrêmement important jërëjëf